bu ma faatoo bu kenn ñëw di ma jooyal nanu ñaan buur bi rabbana na ma jéggal bu ma faatoo bu kenn ñëw di ma jooyal nanu ñaan buur bi rabbana na ma jéggal sama bàkkaar yi moytu di ma jooral aka baax waaju sell na te wóorul rabbana mi ma xam te leen du ko jaaxal. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk ni baaxoo di ñu topp ci seen site internet bii di Wilaya TV mbokk yi bu ngeen jàkkaarloo ak ñun tey ñoo ngi fii fi Touba Darou Khoudoss tey nag li waral jotaay bi mooy bi bisu way dawlu bi nga xam ne Wilaya section Touba baaxoo nañ ko amal at mu nekk fii fi Touba Darou Khoudoss ren ji nekk quatorzième édition yemook le 30 décembre 2021 euh, muy bis boo xam ne dañ ciy fàttaliku ak ñaanal mboolem jullit yi nga xam ñoom ñoo dawlu ji la ko daje suñu maam Adama alayhi salaam ba ci jullit bi mu jë wàcc ab liggéey bis bi nag niñ ko baaxoo defee rek mooy bu ñu xëyee dinañ amal njàngam alxuraanul karim xasida istixfar salaatu ala nabi waaye bu ñu demee tisbar euh, ñu daal di bernde waaye tamit ci suba gi noonu la ñu ànd commission social bi ci don de sang bi nga xam ne dañ koy amal muy mayam deret ndax xam ngeen ne bis bi dafa làmboo ñaari njariñ muy dañuy ñaanal jullit yi fi bàyyi ko waaye tamit dañuy sowee ak dimbali suñu mbokk yi nga xam ne ñoo tëdd ci lal hôpital yi te manqué li nga xam ne moom mooy deret loolu waral ne moom moo di mayam deret da ko ànd ak commission waaye bu ñu demee ba tisbaar ñu daal di bernde eh, suñu demee ba takkusaan sëriñ bi dana génn déngante ak mbooloo mi fàttalante ñoom ñu door ko beneen yoon waaye ku xam na ne bis bi dañ koo baaxoo ànd ak Euh, mboolem daari alxuraan karim yi nekk fii fi Touba rabidatum rasil quraniya euh, bi féete fii fi Touba ci njiital sëñ xaali jaxate ak sëriñ Abdourahmane Mbacke ba féete fële Daaru Moxti ak mbooleem daari nga xam ne ñoom ñoo nekk fii fi Touba ak njaareem kon lii mooy programme bis bi kon mbokk yi ñoo ngi leen jox dig daje incha allah lépp loo xam ne dana bàyyi ko fii fi journée way dawlu bi euh, dana ñëw ko ci Wilaya TV asalaamaaleykum wa rahmatulahi sama teewaay ci dun bi kon bu nu sangeem xalaat taxul ba ma yeesal sama teewaay ci dun bi kon bu nu yàggal bu bu jàll na yellul ku ne toogaat di xaar xanaa ku liggéeyul nanu dooraat liggéey ya tey bañ a te ku faatoot la des ci moom di ko ñaanal jërë ngeen jëf xam ne faw da jël vidéo yeeg nataal yi lépp di baaxal di ma seereel yi teeg yeneen ya mu àndal te bu boobaa bu ma fàtte di ñaanal jërë ngeen jëf xam ne faw da jël vidéo yeeg nataal yi lépp di baaxal di ma seereel yi teeg yeneen ya mu àndal te bu boobaa bu leen ma te bu